parce que suñu doon dafa dañoo télon di problème santé bu am ci structure bi lu fa nekk ne population bi nako mais euh, euh médecin tamit diko jangat bu boba dinañ ko doon teel wutal ay résolution ba muñ ci génn mais dañoo bàyyi ba affaire bi dem ba jur loo xam ne nii moo indi tay li am. Mmh ndax li nga xamante ne euh, li doon raam la woon wala bokk euh, bëri na fi ndax ñu bëri dañoo jàpp ne euh, lu bëri la fi lii daal moom mooy di élément déclencheur rek waaye faral nañ ko fii gis. en fait problème bi élément déclencheur la boo xamante ne yàgg na fi parce que ñu population bi yàgg nañ dégg suñu population bi di kaas nan la sage-femme di toog comporté woo nan la médecin yi di comporté woo mais tamit est-ce que population bi yàgg na daan nañ exiger est-ce que daan nañ toog waxtaan mais yàgg nañ koo jàmbat ku nekk fii am nga mun nga parce que ba mu amee gis nañ ku nekk génnee na wax jaar wax ne man dund naa lii ci structure sanitaire yi man dund naa lii ci structure sanitaire ku nekk wax sa bopp sa wax sa bopp li nga fiy gis donc loolu mooy indi tey jii lépp lii ñu am ci réew mi li fi am si actuellement à Louga dafa fekk ne dañ koo bay bayal ba mu dem ñun daaw ñu demandé xam daa xamuñu woon suñuy droit ñoom tamit seen devoir daa ñu ñu ñun daaw ñun on était pas exigeant population bi exigeant wu woon su ma taxawee ci place population bi tey. Mm-hmm. Abdou Diouf junior la àndal ci waxtaan wi ah, Abdou. Mm-hmm. Euh, maa ngi lay nuyu di la di la ziar euh, di la wax ne xëy na euh, da ngeen yëgul woon ni euh, jafe-jafe yi amoon na ci structure de santé yi maanaam kilifa yi moom moo tax may wax ndax su fekkee yëgoon nañ ne jafe-jafe yooyu am na ci structure de santé yi du itam seen responsabilité su yëf yi demee ba yegg fi jafe-jafe bi amoon ci structure de santé responsabilité su santé si la bokk parce que structure de santé tey ku nekk war nga fexe ba mun a joxe benn service de qualité ndaxte boo xoolee liggéey li ñuy def dafa am déjà charte du malade bon déjà établir nañ ko mais am na loo xam te ne ni popula ñoom si boppam ñoo ko war parce que nit ki buy liggéey da nga am da nga traité serment pour le médecin sage-femme bi ku choisir nga dem jàng métier de sage-femme c'est ton c'est sa sa sa sa sa da nga ko war a mun a matal donc qualité de soins bi ñu lay demander da nga ko war a joxe li joxe service bu baax da nga ko war a def parce que tu as été recruté pour donner vraiment un service à la place de quelqu'un d'autre que ko bëggoon donc mi ngi noonu loolu mooy indi tey situation bi ñuy dund ku nekk bu doon da ngay exiger sa loo da ngay li ngay liggéey da nga siy def li la war duñu ñu tey du ñu dund jafe-jafe yi en fait loolu mooy loolu mooy wax ji. Hmm. population bi aussi bu xamoon tey jii ne que service bi ma jox nii man doyul dama ko war a dama war a kaas dama am war naa am bureau ma ni si biir hôpital bi fa ko war a kaase kon tey jii dinañ mën a corriger loolu yëpp mais est-ce que loolu am exactement parce que ñun ñëpp euh, am jafe-jafe ñëpp ko dund ah. dem ci structure de santé do am euh, interlocuteur ñi ngay laaj sax pour ñu tontu la bakkan lañ lay tontoo yooyu gis nañ ko est-ce que am ay structure dédiée yoo xam ne bërëb la yi nekk ci biir këru fajukaay yi nga xam fa demee di nga am koo waxal nga ne man kat sama métit lii la waaye taxawuñu réclamation yi loolu loolu am na ci structures yi ci yenn hôpital yu bëri am na fa li bureau des usagers donc bureau des usagers boobu noonu ñu mettre en place c'est pour permettre à ce que patient bi pour mu mën a ñëw di wax lan la fa dund lu mu fa jaar hôpital Dantec exemple am na fa boo duggee dañ ko gis am na dañ fay dem ba tafal la charte du malade mais ñu bëri xamuñu ko te boo duggee ci hôpital bi direct accueil da ngay problème bi accueil da ngay njëkk jot c'est le vigile qui est à l'accueil dans les hôpitaux amuñu genre benn aide wala benn ñu mettre en place ben système tay di foofu lañuy ñuy indi santé communautaire parce que santé communautaire tay di buñ ko doon tek ci place bi day mëna def corrélation buñ buñ ñu oh, société tak di nga gis benn blouse blanche wax mom aide la fa nekk accueil lay gérer ci buntu hôpital bi lañ koy placer ku dugg mom ngay laaj boo xamul fo nga jëm fo ngay laaj ku dee yow da ngay doog a dem boo xamul sa boo mënul euh, boo amee problème ci structure bi fa nga koy laajtewee fa nga koy waxee fa ngay jàmbate sa problème ñu mën ko ñoom euh, yëkkati yóbbu ba ci ba ci au niveau administratif pour ñu mën ko régler foofu mais est ce que bureau de vigilance bi ñi ñi xam nañ ko information bi jàll na est ce que bureau yëpp structure santé yëpp a ngi koy respecté hôpital yi ci la am mais centre de santé yi amuñu ko accueil souvent accueil centre de santé bi sax pour nga dem ci accueil bi xam fan la urgence bi ne parfois urgence si biir biir la ñuy nekk yow wala doo xam exactement fan nga war a dem ni demander question des fois même affichage au niveau dans les dans les dans les structures sanitaires dafay dafay dafay dafay def défaut pour nga mën a am centre fi ñuy defee affichage mën a poser ay questions mën nga nga mën a ñëw ne ah lii kat bureau bee la lii tableau bee la loolu la ko est-ce que di nga ko am souvent si structure sanitaire yi comme les le voient ñun ñëpp def nañ jàngat la ngay dugg ba génn boo waxul diw wax diw diw duñ la orienté ba nga dem et même souvent parce que ñu ki boo ñëwee laaj benn infirmier comme ne moom dafa am patient bu koy xaar du am temps tontu la donc ci structure bu amoon kenn mu dafay taxaw juste moom dafay ñaari nit ñi dal la ñuy xëyee suba ba ngoon loolu la ñuy def dina mun a saafara jàngoro yooyu tey. Hmm. Euh, euh, tey li nga xamante ne moo xew ci l'hôpital yi euh, ñu joxoñ baaraamu tuuma ñi nekk ci paj mi ñoom itam ñu jóg ne mbir mi du ñoom kot tax sax bu ñuy grève est-ce que du gën a indi jafe-jafe diggante fajkat yeeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy patient yeeg askan wi. dina indi problème parce que instant bi déjà tay ji ñoom ñu ngi naan zéro accouchement am na ay affiches yu ñu commencé jàlle ci réseaux sociaux yi naan zéro accouchement aujourd'hui xam nga loolu mënta am instant bi sur les réseaux sociaux yaa ngi gis médecins yi ñoom ñi ngi mer population bi ñi ngi leen ñi faju ñi ngi leen di ñi ngi leen di euh, ñi ngi leen di xarab di leen wax leen metti ñoom ñi ngi braqué wu di gis seen bopp te te te loolu tey ji dafay indi benn fossé suñu diggante parce que médecin bi day sumi ñi bi këram moom il est frère il est il est il est il est père il est il est oncle il est cousin il est le voisin donc patient bi tamit voisin la bokk médecin bi la sage bokk sage femme bi la ñoom ñaar ku nekk bu ñu nekkee di tiraillé wu sur le plan sur si seen service bi ñuy joxe dafay nekk loo xam ne dañu war a dafay jéggi dayo nan la mën a nekkee euh, ñun ñi diggante médecin ak kii bi ñu mën a nekk di di jote war nañoo mën a amee sentiment empathie bi ñuy wax tout le temps mooy ku nekk yërëm moromam parce que kii dem hôpital dafa laaj ku ko déglu da soxla ak ku ko faj yow boo jógee sa kër am na loo sa yaram da nga dem ci docteur bi pour kooku wax la sa jàngoro ni ñu koy saafarawee ak lan nga war a jël ba saafarawu kii xëy tamit ki dem jàng sept ans de formation wala trois ans de formation pour des nekk am diplôme station def examen d'état bi ba tamit ba muy jàng daf ko jàng vraiment pour euh, pour am pour mën a euh, tey jii jàppale euh, pour mën a pour mën a jàppale population parce que dem jàngi médecine du du n'importe quoi ku nga jàngi médecine du n'importe quoi. est-ce que finalement du ko mujjee doon sax. man si. ah euh, mujjee doon n'importe quoi dem jàngi médecine ndax. ku nekk non non non médecine ba nga koy jàngi. xam nga dugg fag médecine yombul. je parle pas je parle pas des médecins ñi nga xamante ñu def 7 ans 8 ans mais ñen ñi nga xamante ne xëy na euh, formation bi dafa xaw a gàtt euh, amuñ feneen fu ñu dem soobu ci école yi surtout ko bëri nañ ci réew mi. bu boobaa foofu man je trouve pas que ñooñu dafa que tamit ku dem jàngi ku jël bàyyi ku jël am bac ne leen defi trois ans de formation pour nekk sage-femme nga nekk infirmier yow boo ko jàngi ji dangaa am am nga xolu pour gunge faj parce que loolu moo tax nga dem jàngi ko parce que di nga dem di stage rural di nga dem fu nekk pour nga mën a après ñu mën la nga jaayante ko pour am liggéey mais là se posera la question est-ce que ki ñuy nekk ki nekk foofu sage-femme dëgg la est-ce que du nit comme ne parce que xam nga tamit dafa am beneen problème da ko waxul mooy les recrutements au Sénégal est-ce qu'on recrute à chaque fois ceux qui sont vraiment diplômés. Parce qu'il y a une histoire, les gens l'ont vécu, nous sommes vrais diplômés en santé. Mais nous accompagnés, soignants, infirmiers, ils infirmiers loolu lépp tamit lu jar a laajaat la jàngat bi ñu jar a war a defaat la ci miim réew parce que ki ñuy jël dafa war a xam poste bi ñu ko jox ndax am na sage-femme ne moom bëgg na liggéey mais amul liggéey jëluñu ko yow bu ñu la joxee ci benn poste boo fa toogee war ngaa mën a def liggéey bu jéggi dayo ba bés buñ booy jël retraite parce que soo ñuy fàttaliku am na leen sa sage-femme bu siiw mooy madame euh, sage-femme bi Magné la tuddoon je pense maire Magné si jamono yu yàgg yi la mais ñoo ñëpp leen xamoon nawoon ndax seen nu ñu fonkee liggéey bi ñu ngi ko daan defee dañ daan liggéey ba seen kër amuñu woon noppaliku ba seen doomi sax dañ doon mujj jàpp ci liggéey donc euh, liggéey bi dafa laaj loo xam ne nii yow bu ñu la jëlee ci poste yow nga xam ko. mais école est euh, spécialisé euh, en santé lan moo war doon seen implication ngir lu mel nga en tant que spécialiste en santé communautaire ñun suñu rôle mooy def diagnostic posé le diagnostic bu ñu posé diagnostic ba dañuy après euh, ana def analyse bi bu ñu defee analyse bi avec la population avec euh, suñu lu ñu jot a jàng def planification ak coordination des projets du koy mën a coordonner tey jii bu ñu en santé communautaire ñu ne ko on t'amène au niveau structure hospitalier moom dafay dem au niveau jéem a nekk ci diggante relation le médecin et le patient. Hmm. mu diagnostiqué problème de santé bi problème bi nga patients, des patient bi moom mi ngi koy kaas dina médecin bi euh, médecin sage-femme bi problème ñu ngi koy ñu mu jéem a xool nu muy mettre en place ba mun leen a booloo boole mu résoudre ko ñu def ko ensemble parce que tey ji tant que defuñu médecin bi ubbi boppam euh, patient bi wala sage-femme bi ubbi boppam patient bi patient bi xam na dafa am mun na wax ak euh, sage-femme bi sans mu metti tey ji duñu dem donc loolu fa ñu def ko benn suñu paree ci loolu ñu mun a xool ndax offre de service doy na en tant que spécialiste en santé communautaire il faut ñu xam est-ce que offre de service doy na ñu xam est-ce que am accessibilité de l'offre de la qualité est-ce que patient bi moom mi ngi koy am est-ce que accompagnement bi au niveau kii bi mu patient soxla est-ce que ñu ngi koy am ñu saytu loolu yëpp ñun en tant que spécialiste en santé communautaire ci biir structure sanitaire bi lañ koy saytuwee bu ñu ko saytuwee ba xam am retour patient bi par rapport ak moom offre de service bi euh, qualité de service bi médecin bi di joxe médecin bi tamit wax na plateau médical bi mu am est-ce que plateau bi doy na mm-hmm. mu wax loolu yëpp ñu ànd ak administration bi ñu xool ensemble ñun ñëpp lu ñuy fexe ba point yooyu benn par benn ñu koy mën di élaguer bu le bureau des usagers day nekk en place bureau des usagers bi si la mm. chaque jour nous wax évaluer parce qu'il faut, dem ba évaluer le service le service médical que les structures sanitaires offrent sage-femme bi service bi il faut ñu ñu joxe euh, ñu évaluer ko xam nga une clinique privée on am na fa ñu lay bindal d'évaluation balaa ngaa génn wax est-ce que tu as trouvé le repas bien est-ce que tu as trouvé la chambre bien loolu yëpp ñu laaj ñu ko bu ñu ko patients population patient bi saa ñu ñëwee dañ mën a bu fexe ba résoudre problème ñuy wax ni. loolu la loolu mooy loolu mooy loolu en fait. donc. dégg te xam nga tey jii dafa am facteur tey boo xam dafa mhm. euh, euh, Covid bi dafa indi benn bu bari entre les médecins. ba dañuy wéyal waxtaan wi ci euh, biti boo ñu ngi di expert en santé communautaire.